asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit di mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaare ci nuyoo boo xam ne dañ koy teg ci loxol sëriñ Abdul Xaadir mi nga xam ne mooy xalifab sëñ Daaru Xasan ko ñaanal mu yàgg te wér ak mboolem njabootu sëñ Xasan Njaay gi ku gis jataay bu màgg bi mu jataay bu tedd bi mu jataay boo xam ne ñu ngi toog ak xalifab sëñ Daaru Xasan muy sëñ Abdou Xaadar ak ay kilifaam ak ay jëwrinam ñu toog ci jataay bu tedd jataay bu am solo toog ak jëwrinam sëñ Moustapha Faati ak sëñ Ibrahima jëmm mi nga xam ne moo yor kàddu ak mboolem njabootu sëñ Daaru Xasan yëpp ñu toog ci jataay bii nag ngir menn mbir moo xam ne daa dal ci sunu kaw te mooy mbirum sëñ Cheikh Baara Ndiaye mi nga xam ne yàlla dogal na yoon teg ko loxo boobaak léegi mu yàgg lool sëñ Abdou Khadir mi nga xam ne nag mooy xalifab sëñ Daaru Xasan woote jataay bii ngir ñaan ci ñi nga xam ne ñoo ko teg loxo ñu jàppandal loolu ñi nga xam ne moom lañ ko def mooy ñu tëj ko foofii ca Ndakaaru sëñ Abdou Khadir mi ngi sàkku ndimbal ak ñaan ngir ñu jàppandal mbirum suñu Cheikh Baara Ndiaye moom waaye di sant bu baax nag suñu kilifa ñun ñëpp mu Cheikh Mahamadul Muntaxa sëñ Abdou Khadir mi ngi koy yóbbante ak cant di xamal ne mbir mi it ba mu amee ba tey taxaw na ci ay taxawaay yu am solo kon mi ngi koy sant bu baax ak mboolem kilifa yi diine yëpp Cheikh Mahi Niass xalifab Cheikh Ibrahima ñas ak Cheikh Moustapha Sy borom mustachidin wal mustachidaat ak mboolem kilifa yi réew mi ñoom ñëpp yëg nañ seen taxawaay yi ñu ci def sëñ Abdou Khadir wax na ne taxawaay yooyu moom lañ ko defal ndax Cheikh Baara doomam la. léppam la mbokkam la ñoo bokk maam muy sëñ Daaru Xasan kon sëñ Abdou Khadir mu ngi sant bu baax kilifa yooyu taxawaay yi ñu ci def ak eh, jéego yooyu nga xam ne def nañ ko ci mbirum Cheikh Bara Ndiaye mu ngi leen ci sant bu baax di leen ci di ñaan nag ci ñi nga xam ne ñoo ko teg loxo ñu jëggal ko te wayafal teg gi ko teg loxo ndax kenn la ci njabootam kenn la ci moom koo xam ne lii ba mu dalee ci kawam ba tey wax dëgg fa yàlla am na ci ak tiis woo xam ne bu ko mënoon a saafara tey tey tey tey mu jeex tey tey waaye lim man nag mooy ñaan mi ngi ñaan boobu ba tey mi ngi gën a ñaanaat nag ñi nga xam ne ñoo ko teg loxo ñu woyafal teg loxo gi ndax seen baarakat ay mbiram toll na foo xam ne fii ñu toll nii jot na nag képp ku kilifa diine nga jóg moo tax sëñ Abdou Khadir dañ la njabal sëñ Darou Hassane gi ak ngir ñaan ki nga xam ne njiitu réew mi moo woyafal teg googu moo teg loxo ndax daa wér di goo xam ne fii ñuy wax ak yéen. agna fo xamne xam ne ci mom yaakar ci wërdi di kon nak mi ngi sàkku ñu jéggal ko ta dello ko ci ak njabot ndax njabot ga jaxla nan ta ci mom la mu leen wëru kon nak Sëñ Abdou Khadre mi ngi ñaan ki nga xamne mo jité rew mi muy Macky Sall ak mbolam ñim andal ñepp rek ñu woyofal mbirum seigne Cheikh Bara Ndiaye mu mëna a wat ci njabot ga ba mëna a wat ci daaraam ja wat ci ab liggéeyam ba mëna dajalé wat lu mëna indi ëddiya ba lu mëna yor ak njabotam loolu Sëñ Abdou Khadre mi ngi koy sàkk mi ngi koy ñaan lii nag ay kàddu la yoo xam dañ koo yëkkati woon ba pare nag sëñ Abdou Khadir wax na ne mi ngi sant sëñ Abdou Samad moom suñu Chouaïb bu ci taxawaayam bu rafet te am solo ndax boobaak léegi moom it noppaluwut jéego yi mu ci def yëpp it yëg na ko wax na ne moom la ko defal kon mi ngi koy sant bu baax moom suñu Abdou Samad moom suñu Chouaïb bu ndax jéegoom yooyu rafet na te lépp mu ngi ko def ngir jëmmi alxuraan waaye def ko ngir jëmmi sëñ Tuubaa waaye def ko ngir jëmmi sëñ Daaru Xasan kon loolu bu ko defee moom la ko defal kon sëñ bu Khadir daal kàddoom mooy kàddu yi nga xam ne sëñ Ibrahima jëmb dana ci ñëw waaye lii ak ubbi la woon rek ngir ñu xam ne jataay bi li ko waral mooy mbirum sëñ Cheikh Bara Ndiaye Daaru Ndiaye gépp teew fii ci kanam sëñ Abdou Khadir nga sant kilifa yi boobu ba tey liñ ci doxee ak niñ ci waxee waaye di ñaan nag fi mbiri toll nag ñu jeexal ko mu jeex tàkk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu <coughs> baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokk taalibe yi fu ngeen fi man di ne ñu ngi leen di nuyu fii ci Touba Darou Ndiaye kër sëñ Darou Hassan radiyallahu anhu ci teewaayu sëñ Abdul Qadir Ndiaye mi nga xam ni moo fi toog tey toogaayu sëñ Darou Assane ak ci teewaayu ay rakkam te ka ca jiitu di sëñ Moustapha Fati mi ngi nii toog moom sëñ Abdourahim moom sëñ Darou Assane sëriñ Gunda Ndiaye moom sëñ Ousmane moom sëñ Darou Assane sëñ Fallou Ndiaye rakkam mi ngi toog sëñ seex Maam Say mi ngi toog ak ñu baree bari ci seeni njaboot di seeni doom sëriñ Baara mi nga xam ne moom itam mën nañ ni mbokk mm, la ci seex Baara njaay ndax ànd ak rakkam moom itam kon ñoom ñëpp ñi ngi maase. toog tey ak lenn ci taalibe bay ak sëtaati sëñ Daaru Asan yu takkoo takko yoo xam ne xëy na buñ doon buñ leen doon lim jotaay bi day yàgg kon sëñ Abdou Khadir mi ngi nuyu ñëpp di yiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi ngi fi toogal Cheikhuna Ahmadul Khadim di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér ak àggale ay mébétam ci diina ji ak yoon wi ak bokk gi ak réew mi ak adduna bi yëpp moom sëñ Muntaxa ànd koog mboolem ay rakkam yu mu seqal sëriñ bi ak ak sëti sëriñ bi te ka ca jiitu kañ cay jiital di sëriñ Ahmadou Mokhtar mi nga xam ni moom itam moo fi toog toogaayu Cheikh Mouhamadou Moustapha ci Darou Khoudoss ak rakkam ak mboolem sëti yoon wi ak doomi yoon wi ak taalibe yoon wi kon nag ni ko sëriñ Xaadim imaam waxee rek jotaay bi li ko waral mooy mbokkum jullit mbokkum taalibe mbokkum dëkkandoo mbokkum laqarab fii ci Dëru Njaay di Seex Baara Njaay mi nga xam ni euh, sunu xame sunu jaxasoo tàmbalewul ci moom ma nga ci ay wayjuram ak sunuy wayjur ak mag ñi fi wuutu wayjur yi ba agsi ci nun kon ñiy mag ñi fekke woon loolu lépp bokk gi muy way juróom sëñ mën jaay ja sëñ mën jaay jaara mi nga xam ne ah, doomi ndey la ci sëñ daam xari mi nga xam ni sëñ daam xari di doomi sëñ bàcc ma sàmba ummi di sëtub sëñ Daaru Asan kon loolu tax na mbokk la kon loola mag ñi dara ump leen ca na bokk ga doon doxe jëflante ba jaxasoo ga lépp doon rafet ba agsi ci njaboot gi ba tey kasarika seex baara mi it loolee bi mu dikkee yàqu ci dara la doon bokk ga jaxasoo ga kóllëre ga xëy na bu dee ci wàllu wasila ak njébbal moom kër sëñ daa kër sëñ baara la way juram bokkoon moom itam foofa la féete ci wàllu wasila waaye nag bokk gi ak jaxasoo gi ak jëflante gi fii ci kër sëñ Daaru Asan loolu it moom naka jekk ca way jur ya ba léegi ñi ngi koy séq lépp loo xam ni it kër sëñ Darou Assane ña nga ca moom Cheikh Bara bu ko yëgee dana ca ànd ak ñoom an def ca taxawaay bu mat sëkk ah, ci taalibe rek lañ ko xam macha allah di ko am njariñ ci réew mi niñ mën a waxe ndax boo fekkee ni nit góorgóorlu na ba mbooloo di wéy ci moom di la ñuy la ñuy am ci seen wërsëg ak li ñuy yëngatu di jaare ci moom kon kooka bu ñëpp defee ni moom mooma réew day jub te Seex Baara am na taxawaay ci bindeef yi bu baax a baax loolu moom ku ko xam doo ko werante am nay taxawaay bu baax a baax te loolee lépp ci njàmbaar ak góorgóorlu la ko defee kon kooku ku am njariñ ci réew mi la kon nag ni ko sëñ Xaadim Imaam waxe sëñ Abdul Qadir xalifa sëñ Darou Assane li tax mu wootee njaboot gi nii ñu toll nii te ñi ci ëpp di sëti sëñ Darou Assane ak i sëtaatam ak taalibe yi kon loola lu ko ñor la waaye nag bu ngeen seetloo it da gis ni Cheikh Bara bañ ko tegee loxo ak léegi mat nay weer damay jàpp ni ñaari weer yi dana teg jëm ñett kon loolu ab diir la te yéen a ngi soog a gis ko sëriñ Abdul Xaadir mu toog dada dajale njaboot gi di yëkkati kàddoom di ci wax kon loolu luñ ci seetloo moom kon doonul wala kër sëñ Jalle doonul nit ñooñ lu jóg rek ñu daal di jóg dañuy teey xool ba xam kii lim nekk dëgg la wala du dëgg ndax kër suñ delloo asan loolu rek lañ xamee jàpp seenu jàmbur jub nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla gëm sëñ Touba am leen sëñ Touba topp sëñ Touba topp ndigali sëñ Touba kër sëñ delloo asan ca sëñ delloo asan ba léegi loolu lañ leen xame kon nag moo tax su yëngu-yëngu bu adduna amee duñ daal di jóg rek ne ca rajax dañuy teey xool ba xam lii fu mu tàmbalee ak fu mu yem kon nag sëriñ bi bi xoolee déglu ba dégg ni ñu wax ko ne Cheikh Bara kat attekat yi doon nañ ko atte waaye biñ ko attee liñ wax ki ko mooy liñ doon liñ doon ñaaw njort ci moom kon mel na ni du dañoo amoon yaqin ci lu mu def ba tax ñu jàpp ko mm. waaye nag kon am na luñ ko ñaawe njort te yoon sañ na képp kum ñaaw ci yow njort lam ñaaw ci yow njort mu seet ko gëstu ko ba xam dëgg la wala déet ndax wér na wala wérul kon mu mel ni loolu deesu ni liñ def dañ ko wërta def yoon am na sañ-sañ ci loolu waaye nag buñ demee ñaaw njort ci moom ba yàgg ñu gëstu ba gis ni lañ doon ñaaw njort gisuñu ko ci moom ak di gii mu di ba nekk ci diggante dund ak dee loolu nag moo tax sëñ Abdou Khadir mbir mi ñor ko yitteel ko ndax suñu borom nee na innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axwaykum booleem ñi bokk pas-pasu gëm yàlla ay bokk lañ te bokk googu suñu borom daf noo diggal nañ ko yëwénal kon nañuy dimbalante di jàppalante ci saa boo xamee ni nit ki ba xam dem nañ ba xam ni xëy na lii an ndogal la gu dul woon a ñàkk waaye nag du ca du caageenu jëf wala wax yoo xam ni da koo def te muy loo xam ne dañ ko caa teg loxo kon daal sëriñ bi bi mu déggee ni atte nañ ko nee nañ liñ ko doon ñaaw njort gisuñ ci dara ànd ak nag mu wéradi wéradi gu àgg fii mu àgg kon loolu moo tax sëñ Abdou Khadir dajale njaboot gi tey di ñaan nag état bi tàmbalee ko ci président Macky Sall ak mboolem ñi mu koy àndal ministère de l'intérieur ak mboolem ñi nga xam ni loolu seen wàll la ñu jéggal si Baara bàyyi ko mu dellu ci këram dellu ci liggéeyam ànd ak ñam àndan woon ca liggéey ba di dimbale ñim daa dimbale ndax ku am njariñ ci réew mi la koo xam ni danga man ne nangami nit ñi ngi ci sa gannaaw la ñuy jëfandikoo ci seen kër ci yow lay jaar kooku ku baax la kooku jàmbaar la kooku sénégalais bu baax la kon daal du jar guddal ñi ngi ñaan rek te sëñ abdu it kàddu yii mi ngi koy wéer ci kàddu kilifaam xëy na bu fekkoon ni lii bi mu xamee léegi dégg ci turu sëñ Mountakha kon xëy na lii saxit du tax mu di ko def waaye nag gannaaw sëñ Muntaxa kàddoom jib na ci ndawam ñu wax ni sëñ Abdou Samad dem na fa ngir ci ndigal wala ci turu sëñ Muntaxa loolu moo tax sëñ Abdul Xaadir mi nga xam ne ah, Cheikh Baara njaay nun la gën a jege nag bu doon bu doon ko ñuy laajte ndax bari na ku ci yëngu te xamoo koy Cheikh Baara njaay wala lu dul Cheikh Baara Ndiaye nga xam waaye nun ñii nga xam ne ay way juram nag ñoo koo nag suñuy way jur mu judd ci biir loolu ban àgg fii nu àgg yàgg jaxasoo séq lu ne kon Seex Baara bu dee mbokk moom suñ mbokka mm. bu dee wàllu njébbal nag taalibeb guy mbinda taalibeb sëñ Moustapha moom Seex Abdul moom sëñ Sidi Moxtaar moom Seex Mohamadou Lamine ba moom Lamine mm. waaye kon daal euh, ak mbokk ak jaxasoo ak wëllanante tem yàgg lool tàmbuleewul ci moom moo tax sëñ bi sàkku lii mu sàkku kon daal ci gàttal lu nuy waxaat li ñu waxoon rek la ñuy waxaat ñi ngi sàkku daal tàmbalee ko ci Macky Sall ministre de l'intérieur ak mboolem ñi nga xam ne ñoo yor wàllu atte biñ ko attee ba xam ni liñ ko doon ñaaw njort ci moom nekkul ci moom ñu bàyyi ko nag ànd ak wéré di nag bañ ñu ñaaw njort day deeg day dund kon nag ñi ngi sàkku ñu ñaan ko mu dellu ci liggéeyam ànd ak ñam doon àndal jërë ngeen jëf sëñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Ừ. Ừ. Ừ. Alhamdulillah. Hmm. Alhamdulillah. Kan ba. Sen bismillah. Nangu ñaan. Ừ, bismillah. Amen. Amen. Amen. Amen. 嗯。